الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهديه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليس بمصره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 tey daal li gën ci xar ci euh, rey mooy nga xam xar xar moo xam ne buur lay doon dégg te du du patt du laggi du nekk xar moo xam ne dafa yooy du xar moo xam ne dafay dafay caar yooyu yëpp dañ ko jël wala boo xam ne dafa xam góom te wéragut yooyu yëpp dañ ko cee bañ bu fekkee nag amoo ko wax nañ na nga xut xar moo xam ne xar mu jigéen la su ko amut nga ut bayu ab masalan ab sikkat bu sikkat amut nga ut bayu jigéen su ko amut mu ne nga andi nga jël nag soo ko amut nga indi gëléem waaye daal lu mën a xew moom fii ci réew mi tey li gën mooy xar su ma bay su ma nag buy ca màkk nag la gën mooy la gën mooy nga def ko muy muy muy muy gëléem ndax bëri yàpp moom nañ ca nangu fii nag neexaay mooy li xam ne moom la ci gën a sopp mu ne nag tey nag boo xamul tey badoo wala la ñuy wax jib yooyu yëpp mënul tabaski mooy jur yi nga xam ne di dund gi wa wa huwa min daani boo xam ne dafay am benn xat wala mu dugg ci fukki fukki weer ak ak fukki fukki weer wala juróom-ñetti wala juróom-benn weer yooyu yëpp mën na ko la gis. nga dàqale fi fi saani bi wala mu dugg ci xam na asi dafay am ñaari at wa dàqala fi saani bi wa min al baqari maalu koo xam ne tey bu fekkee bu nag la tamit dafay am ñaari at wa dàqala fi saani mu fekkee gëlëm la dafay am juróom benn at moom tam loolu mooy màkk ba ci su boobaa wala jaay wal wal maqsuuratul xarni ida kaana yubni wal basimati wal maqtuati usni wa zanbi wa samhaayi wa nuhiya an qarqaay wa sarqaay mu ne comme yi wax doon wax léegi mu ne xar boo xam ne tey dafa ak wala ñu xar wax ba dégg nga wala boo xam ne dafa euh, di di caar yëpp wala wala ñu dog na ko yeex yooyu yëpp mënu ko mooy yëpp ko ne ma sa tëx wala gumba wala wulu ba tey yooyu yëpp du man tabaski ومن مقدمه والمضافة وهي التي فتحت قبله وتم أصلها في المعارض ووقتها fii yowmi awani min ayaamiha salaatu tey jii mooy tam tey tabaski la suba tam tabaski la gannaaw tabaski la gannaaw tey di la boo xamee nga lay suba bi talaata bi soo ko amee nga lay te àllarba la ko fagalee ba jant bi soxla soo ko amee nga lay waaye bu jant bi xasee solo su boobaa moom wàcc na la wa in lam yaflu li gàll tey nag jii bëgg nañ ñëpp nañ taal ñëpp nañ dem génn dem ci jullikaay ba ci màggat yi xam sax mënuñoo dox nañ leen jël yóbbaale ba ci jigéen yoo xam ne dañoo xam ngànt da nga gis sport yi ñuy wax ne ñoom ñëpp tey muy kenn nga toog ci kër war nañu génn ndax lu tax ñu génn yërmaande yi nga xam ne yàlla mu ngi koy wàcc ci jaam yi wax nañ ne bésu tey bii yàlla dafay ñëw ba ci asamaan si njëkk te yàlla dëgg-dëgg amul barab waaye dana jegeel xam lu mu jagleel jaam yi yuurlu jaam yi ngir lan gis niñ toppee ndigalam ak ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee loolu moo tax yàlla tey bëgg su boobaa ñëpp génn ba ci jànq ji sax bëgg nañ ñëpp génn ba ci gone ndaw yi ñëpp nañ génn ndax ñu am yërmaane ji ñi xam ne moom la yàlla di joxe ci biir ñu ngi leen ñaanal yàlla ñu yàlla ñaanal yàlla ndax tey mbooloo mi ndax tey mbooloo mi yàlla yàlla xeeb dolli yàlla daanaka yéen ko moom daanaka di dénk ñu ngi ragal yàlla ragal yàlla ak bëgg seeni waajur ak seeni waajur te fonk seeni waajur te fonk seeni waajur te di leen déglu te di leen déglu te di leen ñoom te di ànd ñoom bu leen xeeb seeni waajur doom du xeeb waajuram xeeb waajuram. doom du xeeb waajuram. doom du xeeb yàlla la ko sédd. te yàlla moo màggal. te yàlla moo màggal. waajur. waajur. màgg na de. sëriñ màgg na de. borom xam-xam màgg na de. waaye yàlla lim yaxal ci alquran. waaye yàlla lim yaxal ci alquran. mooy wa qaddaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan. yàlla mu ne. yàlla mu ne. gannaaw bu mu la bindee. gannaaw bi la bindee nga gëm ko doo ko bokkaale te doo mu ne na nga rafetal jëm sa ñaari waajur bu fekkee naxante naxante xamul bu fekkee naxante amul ku baax mi ngi baaxee ci waajuram ku baax mi ngi baaxee ci waajuram waajuram dafa mel ni fondement waajur dafa mel ni fondement fondement yi benn état xam na fondement yi tam benn état xam na fondement terrasse xam na fondement xam na waaye fondement téeméeri état xam na waaye fondement téeméeri état tabax mi ngi ci fondement. yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne tabax mi ngi ci fondement. fondement ab doom mooy ñaari waajuram. fondement ab doom mooy ñaari waajuram. fondement ab doom mooy ñaari waajuram. fondement ab doom mooy ñaari waajuram. nu sa waajur mën a mel. nu sa waajur mën a mel. yàlla neex mu jaarale la foofu. yàlla la neex mu jaarale la foofu. fonkal bëggal teralal. fonkal bëggal teralal. bu leen doom bokk ci doom yi nga xam ne. bu leen bokk ci doom yi nga xam ne. dañuy merloo seeni waajur. wala ñu fexe ba seen yaakaar dañ ci ñoom. wala ñu fexe ba seen i yaakaar dañ ci ñoom. bu leen tax loolu mukk ci àddina. koo gis mu jiitu. koo gis mu jiitu. ci wàllu tubaab ci wàllu lu mën a doon. ci wàllu tubaab ak lu mën a doon. di yónni ay nawleem. di yónni ay nawleem. ca ndey ja rek ak waajur ya. ca ndey ja la ak waajuram. kon na góorgóorlu leen. kon na góorgóorlu leen. fonk seen i waajur. fonk seen i waajur. bëgg leen seen i waajur. bëgg leen seen i waajur déglu leen seen waajur leen seen i waajur bu leen bëgg seen yëf bopp bu leen bëgg seen yëf bopp lu ngeen xam jox leen leen lu ngeen xam jox leen leen meloo tey meloo tey bu mu yàq cosaani démb bu mu yàq cosaani démb dëkk dafay am baat dëkk dafay am baat kër dafay am baat kër dafay am baat kilifa bu xamul baat xamul dara kilifa bu xamul baat xamul dara kilifa bu xamul baat xamul dara kilifa bu xamul baat xamul dara jox leen kilifa yi seen baat yi jox leen kilifa yi seen baat yi te duñ leen digal lu bon te duñ leen digal lu bon duñ leen xiir mukk ci lu bon duñ leen xiir mukk ci lu bon kon nag loolu yéen a ko moom jamono bii nag. jamono bii nag. lii këf gone yi dafa bëri lool. lii këf gone yi dafa bëri lool. bëri na lool. bëri na lool. ndax xam nañuy campagne. ndax xam nañuy campagne. xam nañ xalal. xam nañ xalal. xam te seen kàddu dafa neex. te seen kàddu dafa neex. te dafa ànd dafa ànd te baatin ba lépp caay te baatin ba lépp caay te commencé di kër gone yi. te man xam naa ci ñu bëri. parce la ci lislaam génne lay wan rek ngir wërsëg wuñ yaa ngi dara doo dee mukk lu mooy lu mooy jënoo nga ak loola waxoon naa ko ci tëb ci korite gi te li may wax yéen ñëpp xam ngeen ko am na ñu am na théâtre kat yoo xam ne am na théâtre kat yoo xam ne doo gis mukk ñu def théâtre. lu mooy weeru koor. lu mooy weeru koor. bu weeru koor yi national. yeneen yeneen. yeneen télé boo xubbi rek. boo xubbi. ngi koy dawal théâtre. ña ngi dawal théâtre. ndax ñiy yàq dañoo xam xam-xam. ndax ñiy yàq dañoo xam xam-xam. kum yàqkat dafay am xam-xam. yàqkat dafay xam-xam. da yàq. ko parce que du xam fu muy teg tànkam. ndax du xam fu muy teg tànkam. ñii na seen caay-caay gi biñ ci laata dugg dañoo xam. laata dugg dañoo xam. jàng nañ doomu aadama. jàng nañ doomu aadama. ba xam buñ koy bu ñuy ñëw ci moom fa ñuy jaar. ba xam bu ñu ñëw ci moom bu ñu jaar. ak yañ koy wan. ak yañ koy wan. ba xolam xaj ci lu tax. lu tax yonent sallallahu alayhi wasallam daf ne na ngeen ree ju bëri. yonent sallallahu alayhi wasallam daf ne na ngeen ju bëri. ndax ree ju bëri dafay wowal xol. ndax ree ju te yéen ñii seetaan film yi. seetaan film yi. seetu leen band yi. balaa rey rek balaa balaa rey rek dafay ree. balaa rey daf lay yaakaarloo. daf lay yaakaarloo ree. ree nga foog ne mucc nga. nga foog ne mucc nga. bu ñëpp ñi rek daal di rey rey. buy ñëpp ñi rey la. noonu la mel. ree noonu la mel. ñoom fañ koy defee. ñoom it fañ koy defee. yow nga fajaroo koor. yow nga fajaroo koor. ba jant bi so. ñu jekki ba nga dog rek. ñu jekki dawal film yi. lañ ca namu. lañ ca namu mooy sa bi gëmoon yàlla. ak yëg gi nga yëg yàlla. ak yëg gi ñu dawal film rek. bu nga fàtte ne yow ci koor nga nekkoon. dootoo ñaan. dootoo ñaan. dootoo tala julli. dootoo tala baa ngi daw. fekk film koy seetaan. da nga koy ba mu pare nga soog a mën a lekk. ba mu bu paree sax ci nga soog a mën a julli. a mën xam-xam a tax ñu def loolu. xam-xam moo tax ñu def loola. ndax yàq pas-pas yi. ndax yàq pas loolu jar na gone yi di ko seetaan di ko déglu. loolu jar na gone yi di ko seetaan di ko déglu. àddina bi képp kuy waxtaan war ngaa yeete. àddina bi képp kuy waxtaan war ngaa yeete. wax lii xew ci jamono bi gone yi xam ko. wax lii xew ci jamono ji gone yi xam ko. ba su ëllëgee lu xew ñu naa lii waxoon nañu ko. lépp lu xew ñu naan lii ndax parasol baa nga tiim. te yéen a ngi ci naaj wi. te ñu ci naaj wi. bëgg waxtaan wu waxtaan wu neex. tax ma lore. tax damaa bëgg mu baax rek. waaye dafa bëgg mu baax. gone benn. di demlante di fekkalante di dimbalante. di demlante di di dimbalante. ñun buñ noddee dem leen diggante yi yéen ko moom. diggante yi yéen ko moom. mu rafet. mbubb mu rafet. dàllu rafet. dàllu rafet. kodaay lu rafet. kodaay lu rafet. rafet. kër gu rafet. kër bu rafet oto bu rafet oto bu rafet kenn xaayiwu leen ko kenn xaayiwu leen ko loolu yéen a ko moom loolu a ko moom indi na buñ ko fàtte mu yàlla ki leen ko jox nag mooy yàlla mu leen ko fàtte ñu ngi ñaanal dëkk ñu ngi kawil kawil yi ñu wër dëkk yi ñu wër nañ barke yàlla nañ barke yàlla fi yàlla wàcc barke yàlla fi yàlla wàcc barke na di ko feeñal yàlla commencé na di ko feeñal dog yàlla bu ko dog yàlla ngeen man dara yàlla ngeen man dara yàlla ngeen man dara dara. yàlla ngeen mën dara. ba ëllëg bu ne nañ julli ji. bu ëllëg bu ne nañ julli ji. oto yi duñu xaj fii. oto yi duñu xaj fii. te fekk yéen a koy moom. te fekk yéen a koy moom. terrasse yi taxaw. terrasse yi taxaw. étage yi taxaw. étage yi taxaw. kaalaay màkk yu bëri. kaalaay màkk yu bëri. maxanaay màkk yu bëri. maxanaay màkk yu bëri. wërsëg yu yaatu. wërsëg yu yaatu. te su boobaa yàlla bu ñu fàtte yàlla. te su boobaa yàlla bu ñu fàtte yàlla. yàlla xam ne nii ma koy ñaanee noonu laa leen koy yéenaa. yàlla xam ne nii ma koy ñaanee noonu la ci ko yéenaa. su ma ko mënaloon sama bopp. su ko mënaloon noonu la leen ko defalee. noonu waaye mënuma ko. waaye ko. te xéene naa leen ko. ma ñaanal leen ko. mu ñaanal ko. ci ki man. ci ki man kenn ku ne yàlla yokk ba yëpp. kenn ku nekk yàlla yokk ba yëpp. ku caam ko yàlla saafara. ku caam jàngoro yal na ko tey bii nag. bisab tey bii bu kenn jooyloo kenn. kenn.